Chez le showroom, Biz Collection, Lumière du Sénégal, Leral TV, Huile J'adore, Promobile, AMD Corporate. Namour. waaw bébé Diop. sa lampe bi nag. waaye benn marchand ambulant moom jaay vite fait. lii de bu doxul nga waaru. toogal foofu noonu. lii maa la koy branché daal loxo. mais waa ji dóor na ma. ma ne ma. maa ngi leen di changé ampoule bi ah. léegi lampe bi fu mu gars yi soriwuñu quoi man dafa yomb trop lii nii kii dama Sénégal weesu ay ba leeral pendule hublot lanterne classique wala bluetooth couleur boo bëgg forme boo tàmmu pour jox sa intérieur wala sa ambiance bu méngoog sa bëgg rax ci dolli ay njëg yu fi ñëw taamu lamp bu ko doy. Restaurant chez Katia. Venez passer un agréable moment en famille. Vous y vivrez des moments inoubliables, même en ces temps de Covid-19. port de masque obligatoire. Protégez-vous et protégez les autres. Huile j'adore. Le showroom.sn Le showroom.sn Le showroom.sn Le showroom.sn Acheter en ligne, de livrer loco comme flash, sa commande lañ lay andil nga fay ñu cash acheter en ligne flash. I am Decorporate. AMD Corporate vous offre votre série Face cachée du réseau. jaar naa sa orphelinat plus de trois jours ma fay jaabante. mais duma la fa fekk malheureusement. si lañ ma tegtalee sa kër. Mhm. ma daal di fiy ñëw. Fadou suñu bébé nga bëgg adopté macha allah ñoom ne dañu am bayre moom. non non du ah, man la Zeyna maa fi ñëwoon ay at ci ginnaaw amoon problème ak sama copain bi ak sama waa kër. moom nag foofu nag ñi fa jaar bëri nañu de. xëy na damaa changé ci diggante bi man la woon maa fi indi woon jigéen bi. su ma la nee tay nit dafa la juróom ñaari jikko ye dundal ba dee doo ma la ne tay nit dafa la naan juróom ñaari jikko ye dundal ba dee doo ko xam adinna adinna adinna dinna adinna adinna dinna dundal ba dee doo ko xam xanaa loolu lu yàgg la de waaw ah, lu yàgg la kay baadu yooyee xale bu jigéen boobu ñëwoon àjjuma boobu mu doon taw waaw loolu yàgg na de Zeyna ah Zeyna xàmmewu ma la yaa nekk nii ah léegi leer nga de xanaa da sëy. am borom ah, moo tax yaa ngi leer naa <laughs> merci wax dëgg fa yàlla yow rek laa gisoon. dëgg la gi ngi ma conseillé ma vraiment nit ku baax nga. dëgg la ma la doon laaj rek. sama doom jooju nu mujjee. mi ngi si jàmm bu baax sax mi ngi ci famille d'adoption bu baax manqué wul lekk manqué wul naan dugal nañ ko tamit ci école yu gën a baax. kon dañ koo adopté. waaw adopté nañ ko macha allah yàggul sax si orphelinat bi yàggu fa nag. man de maa ngi sëy boobu ba léegi mënuma am doom ak sama borom kër xam naa ne nag yàllaa ma teg nattu nattu yooyu ndax sama erreur yi ma defoon dans le passé. ndogal la nag ma fi day am nag mais di nga am incha allah. ñaan daal est-ce ma chérie. sama doom jooju dama ko bëgg gisaat. Zeyna gisaat nga wax Zeyna ñun loolu mënuñu ko def loolu suñu liggéey mayuñu pour ñu def ko. te jàppale ma rek man soxla ma ko sax récupérer mais naa ko gisaat rek. c'est li nga war a xam mooy xale boo ko xasee ba joxe en adoption anonymat bi nga fa def daa ko signé munoo ñëwaat tey naan da ko bëgg gis loolu day perturber sax xale bi. naa ko jàppale ma ma gisaat sama doom. c'est vraiment désolé. <laughs> bul jooy déet déet waaye déet maa fii déedéet bul jooy noppil noppil noppil noppil noppil comprendre naa sa douleur. jëmm suul la jàppale ma ma gisaat sama doom. li nga wax mais laata ma sama yaram. je suis seule. sama doom laa soxla gisaat soxla moo ko sax récupéré man naa ko gisaat rek mais naa ta jàppale Zeyna bul jooy déglu ma Zeyna dama la ko ñaan bul jooy xam naa ko mais maa fii loolu bu ma ko defee yàq sama liggéey bi ma def yëpp ci at yi comprendre ma su ma ko defee rek yàqule soxna xam nga la moo tax tey ñu indi la fii pour nga wax dëgg bi yépp jigéen nga nag may jigéen xam nga bu baax li la si mën fekk te xam nga ni kaso dafa metti dama bëgg xam si daat lan la jote ak Malick ba bëggoon ko rey Malick de bam dellusee gisante nañ te expliqué na ma lu bari expliqué na ma li sax ni que Sidaati daf ko bëggoon a rey man ak Sidaati yàgg nañ de mais mosuma xalaat di na def def ju mel nii. soxna léegi mën nga ñu jàppale ci benn affaire. ñu teg si daat lox li ngeen bëgg yëpp dinaa ko def incha allah. dafa yàgg loolu. mais naata xanaa amoo jàppale ma. comprendre naa li ngay wax bu baax. amoo ma ko récupéré man naa ko gisaan rek. bàyyi jooyi bàyyi jooyi billaay boo jooyee sama àdduna day jaxasoo. Zeyna sigil sigil bul jooy xale bi soo bëggee mun naa lay jox ay nouvelle wax naa la ko xiiful magul mi ngi si jàmm ak salaam mais di la wan xale bi muy perturbé ma ci yàq sama liggéey loolu mënuma ko def je suis di nga am njaboot gëmal yàlla di amaat yeneen njaboot mënu ma amati doom yàlla nattu na ma ba pare ndax samay erreur mu dee ma doon tañ ko bàyyi du ma ko abandonné di nga amaat di couragement fii mais nga baal ma mën na a yóbbu foofu dalalal sa xel nag xam ne xale baa ngi ci jàmm maa ngi lay bàyyi sama carte sama adresse ak sama numéro yëpp a ngi merci beaucoup dama lay ñaan nga bës sa nga ànd ak yàlla di nga amaat yeneen njaboot du courage Zeyna dinaa la woo dégg ci àdduna tey moo ngi nii ñëw bëgg gis doomam te mënatu ko gis réccu dafay fekk jëf wees waaye doom moo sax si xol bim mu koy joxe bugg ci woon dara waaye tey dellusi si na ngir gis doomam sama xol fees na deew ko kuwoo dexet quoi deewo mbiɗo gilmbeɗe woni fuuta tan dewno huwoy so so ñowe dakar dinaalo ma gel dinaalo ma gel tan hami ar dakar fuɗɗo yeede kafam dewno noddam téléphone an ngala bolle puuɗi quoi dew dew ala hawa arɗo hannde hannde hawa arɗo min farata ɗum hawa wetto ɗo hannde dew yo arɗo tan omo haala yo arɗo tan dew kanko yo arɗo haala somo laal ma benn café benn Marlboro rouge ma indil la lu la war a jox. teew teew teew naa la ba tàyyi tudd ma deew tudd ma deew xam nga la tudd deew D E V. bi ma lay deew nii laa def ma jooy kafe kafe tuuba. laajuma la kafe tuuba kafe laa la laaj. eh ka dul ka koy tuuti. càgg bu góor nga yow càgg bu góor aɗa nan càgg bu góor càgg bu góor ko ah. ko woni an ko wuta aɗa wuta yow booy bi booy bu si koñ bi bu dëkk angle bële moo tax ngay teg sa bopp nii nii di jaay neex di tëb di daal teew teew eyi eh, ka exactement mais koro a waɗani a waɗani ko kalɗa ko deflo liga wako mayma gel gel gel bi hola bimla ko dale bimla ko dale ñaan bo woon ween moom am na ween lii booy bi léegi ween ni doot ah war bëri benn bu yàq suma xol dégg nga. xoolal problème bu yàq suma xol laa la wax bu mu tooñ encore. ci la koy ko fan ah, fan fan fan. xoolal ay ay ay benn yooyu bi. bi la jam bi. waaw li li la. jam jam. an jam sanday jam sanday big laay jam. woo rewoon tan rewoon tan yeewa topp ma tan su may jam say ndey. demal rek toppal tan toppal tan gaara ñëwal tan portable dafa fay. essai muy dafa xam naa dafay liggéey. yow wax naa la dangay dangay duul càkk nga. kan nga wax càgg bu góor càgg bu góor nga wax naa la ko càgg bu góor da ngay duul. Eh, kan nga duul. ah man woo ko mën a duul de jikko duul kat nga yore léegi. mu bett de bul mu bett. yow eh, kan mooy duul. ah kaa bett doon. kan maa bett barki Rasulullah dégg maa bett. maa bett. yow ko yow ko procureur ko naawal ma même duul felen. wax. billaay dama wax. shut up ta gueule mais toi tu parles trop bari nga wax waay. bon voilà euh, Zara eh, elle Zara Zara dimbali leen ma baale ma ma ñibbi ngir yàlla. Zara sama jëkkër sama waa kër ñu may woo leen ma. wallaahi faut même pas l'écouter Zara dimbali ma ngeen bàyyi ma. elle capable de tout bu ko déglu. c'est tout hein moom laa doon wan. ok bon yow l'autre jour kon su ma ñëw woon cela veut dire que danga ñuy éclater. dimbali leen ma bàyyi leen ma ñibbi Moussa ñibbi ngir yàlla. kon lan nga fay def. lu ñu liggéeyoon ñëpp nga bëgg a ñëw yàq loolu nga bëggoon def quoi. na xam ñaat lañu ñu coûté projet nga bugg a claté xam ne fi ngay deewee nii mooy sa prison doo mës a génn bul sax jéem a espérer tu fermes ta gueule doo dégg li ma la wax chut maa ngi dem maa ngi ñëwaat. waaw jàmbaar jooju na léegi la mooy solution. gis nga ñu ngi nii wër nañ ba sonn te lépp yow la heure bii boo defoon li nga war a def coono yi ñu nekk nii duñ ci nekk. saa xam la mooy solution jéem a tànc booy bi booy bi li mu xam dafa bëri jéem a tànc booy pour man mooy solution bi mais pas ay coono on a tous fauté yow ba ngay indi booy bi ni xanaa xamu ni booy bi toob la. man gel bi pour wax la dëgg rek kooku man la njëkk a jaaxal te maa ngi doog a xam la moo tax. mu doon forcé pour bëgg a dugg ci réseau bi. noonu ko yow tam fi am fu dee. ñu xamal boo xamoon ni lim nar a def kon heure bi bala blessé santé def nga lim la wax. mënu ma la sa expliquer la moo tax jour boobu noonu appliqué wu ma action mais xam nga duma xalaat. li ma gën a jaaxal lenn la mooy Jeanne lan la war a wut ci réseau bi. dañ jéem a tànc booy bi li ma xam dafa bëri. il faut retour Sirou. ñu ñaan ñëpp yàgg nañ ci réseau bi xam nañ bu baax na muy doxee mais yow xam nga man xam naa Sirou gaynde la te su maatee day dagg. xalaat la solution la et puis bi va passer inaperçu. Sirou foog ñu gis ko mais yow moom jàppal ne xoolal eh, lii bu la dalatee mooy sa génn ci réseau bi. yow ñaata mission la ñu yow booy xanaa c'est la première fois ma fu dee ñaata mission la ñu ànd dóor ko. ma def appel. Yeah, zero. My boy, nu mu waaye Moussa am kaa fansam noonu kaa fansam jox ma foofu benn café jox ma foofu benn café. waaw douze rek bu yem. voilà du far leel sax leel sax loolu du koy roof tax a yaa ngi sama roof moo dese. tey de ma xaaral ma de xam naa li ngay neex loolu moo tax kale jigéen da nga duggal yaw Moussa boo ma gàccee daa bëri orso de. yow yor sa café nga jaay mais da xool nit ñi quoi. di xool lu gaay de comprendre loo damay gis ngay dugal tey bu ñuul suba bu weex ginnaaw suba bu ponka te xam daal ñoom daal bu saf la ñuy wër waaye yow. Moussa ka saay saay. yow pervers nga de. ala mi waa ji nga fang dama fang dama laa fang ci nga Moussa léegal bi fii am na benn góor bu mun ma jox ko cinquante mille mm. ay café ay tàngal Malboro pour man gel gel i mu may daw loolu daw fefte pour benn gel rek cinquante mille oh boo yow da ngay nelaw yow nan nan laay nekkee sa grand nekk oh nga bëgg benn affaire doo gis waaye Moussa yow weesu weesu maa ngi tëdd di kalaat su ma kalaatee rek ma saw yaa ngi reetaan lu ko demee noonu ay gént nga may tegal lii gént dama koy gént mu ngi am ba tey dama koy gént mais xam nooy def da ngay bàyyi loolu yëpp xoolal nga ñëw ma formé la dangay ñëw ma formé la xoolal teg la ci code def la un mal delta ma formé la wan la ni nañuy amee booy ci bu simple te xoolal du laaj dara dangay ñëw rek ma lay coach di la teg ci code nice man ah non yéen totalement na ma duggal ci biir Kolamta oh. loolu kese laa bëgg Serou yow xam nga bu baax que ni danga bokk ci samay am de confiance muy lu leer te gis nga actuellement réseau bi dafa yëngu Bliss mu ngi suñu kaw guddeeg bëccëg dañu tegal ay tartar ndax lan lu ñu war a def defuñu ko booy Jeanne te gis nga ki mu rëccal kooku laa bëgg nga teg ko loxo ndax kooku la mooti war a yóbbu li mooy sa mais réseau bi dafa tàng kii rëccal nañ ko léegi yéen la faute à qui yéen nan ngeen mën a naïve di dugal nit jox nit confiance de telle sorte ko mu leen di saw comme bébé. Sirou fii naïf amu fi musuñu naïf yoo xam nga ne ay mission yu gën a tar lii dañ ko doon gérer mais suñu demee ba tol fii ana nga nekkoon. bi ñu lii di dal ay évasion di am foo nekkoon yow. gis nga président à l'impossible nul n'est tenu dama nekkoon ci samay bagage su bopp. allo waa Gaynde waa yëg si nga même place ah ok thank you je vais pas maa ngi nii ci yoon maa ngi ñëw pare na ok mot na léegi léegi. ko gëloon na dimbali gël bi moo la woo war ñooy caga rek ñii. dama nekk ci yoon léegi xam nga nu ñuy def da ngay jaar gàlle après xam nga man naa teg ci code wala booy yi nan nga leen di IFTV. E wax wax jàppal iri futi caw. o caw o cawee o wona prison o wona haydar ko cawee ala nga changé ni ngay waxee wax ju bëri ji nga war a bàyyi nag wàññi wax ji yow da ngay rek booy bëgguñu lii ku nekk da nga dugg ci duggin bu garaaw yow xam nga ni nga duggee donc liy am am na ba pare. ok yaay xam. li nga war a def yow moom ngay def mooy fexeel la tuub ba tegal ñu waaji loxo. li ma war a def safa saw la dama koy def bàyyi foos. mais looy xaar. du moom mooy salteel sama palmarès. ok mais juste dama bëgg ngeen xam benn affaire une fois on peut tolérer deux fois on peut tolérer mais trois fois c'est autre chose. te man du leen xaar ngeen di commettre une deuxième fois erreur bu basique bi ba ñu dalee Job ak Bliss du tey réseau bi ba muy yëngu du tey ci lu nekk ñu ngi ciy dugg problème bu buum sax mosuñu ko am donc lu ne nga xam nga li nga war a def amul loo ciy xaar le coup est déjà parti amul problème mais xam leen ni affaire yi cooki ndong la gën a mbong la for xam naa du kii mooy saltal sa palmarès yow nga ne lan la cooki ndong gën a mbong for jeex na sa mission tàmbali na bu ñu gisante waat koor laa leen di indil dama koy motal baby shoe loo may doyee nag maa nam xamante nañ loo yow chaque jour ça va nga ne très bien ah mais c'est la vérité je vais super bien macha allah ana xandal gi sax vu que yaa ngi ci jàmm xaaral ma joxati la lu lay xañ reer ak ndékkeeg ma la ne tay nit dafa la ndax juróom ñaari jikko ye dundal ba dee doo ko su ma la ne tay nit dafa la ndax juróom ñaari jikko ye dundal ba dee doo ko j'ai du réseau. le showroom. Biz Collection, Lumière du Sénégal, L'Eral TV, Huile J'adore, Promobile, AMD Corporate. Namour. waaw bébé Diop. sa lampe bi nag. waaye benn marchand ambulant moom mu ko jaay vite fait. lii de bu doxul nga waaru. toogal foofu noonu. lii maa la koy branchel. daal loxo. mais waa ji dóor na bi ah. léegi lampe bi fu mu jëm. gars yi sëree wuñu quoi man dafa yomb trop lii nii kii dama koy wëri. Lumière du Sénégal. weesu ay lamp leer ba Sénégal ay lustre pendule hublot lanterne classique wala bluetooth couleur boo bëgg forme boo tàmmu pour jox sa intérieur wala sa extérieur ambiance bu méngoog sa bëgg-bëgg rax ci dolli ay njëg yu yomb ba ku nekk fi ñëw tàmmu lamp bu ko restaurant chez Katia. Venez passer un agréable moment en famille. Vous y vivrez des moments inoubliables, même en ces temps de Covid-19. Port de masque obligatoire. Protégez-vous et protégez les autres. j'adore. Le showroom.sn Le showroom.sn Le showroom.sn Le showroom.sn Achetez en ligne, nous livrer loco comme flash. Sans commander, le lait nga fay ñu cash acheter en ligne ñu flash. I am Decorporate.